moy moy sen moy sen moy moy sen penku. Mhm. Pastef Mélenchon France insoumise moy sen penku. Mhm. lay wax ni. waaw moy sen penku buñu ñuy julli. ci xalaatam mom yaa ngi wax lu non moy sen penku moy sen penku. Mhm. yow nak li nga ne passef neexuñu ñuma gëm. do ci xalaatam la rek garaawul France insoumise moy penku wa passef moy sen penku buñu julli fofu la ñu jublu. <laughs> mais c'est vrai. c'est grave légui nak France insoumise boobu. France France insoumise boobu. France insoumise Bobu, moy malédiction bi gëna mag ci aduna manam mm-hmm. tay bu France souf si ak ki bi France insoumise tax ñu ëlbeuti ñu koy def Yalla diko day mer ndax bu mariage homosexuel en France. Mm-hmm. Gore ak mariage pour tous. Mm-hmm. mariage pour tous. Mélenchon moo ko moom moo ko validé. Ah. waaw léegi léegi ba pare ba pare nag nekk ambassade nekk yónnante bi. Mhm. maanaam mariage pour tous. Mhm. moom la ñu yónni mu wër ci àdduna bi pour àdduna bi di def mariage pour tous. donc donc non xaaral ma wax la donc tey jé dee ci li jiyaat la xeex xeex li war a xew Sénégal nii. Mhm. ba dee ci jiyaat la. waxuma la nag ñu tëj la si kaso loolu day dara tëj la si kaso loolu mu tekki. mais tey Bah Diakhaté déggoo ne ma ne la est-ce que bu mu biñ ko dugalee rëbës. est-ce que tëddul ba guddi sax di dégg ay allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa parce que yàlla bëgg na ci moom ci Bah Diakhaté euh, euh, dañuy ñëw par rapport ak euh, Bah ak lu ni mel yëpp je pense que wax nañ si liñ ci waroon a wax même bu dee sànni nga xeer su man ko garaaw hmm, waaw comme dama bëgg ñu ñëw si Maroc ak France hmm. ñi nga xamante ne dañoo daal di recadrer kii di le président sortant. oui, mhm. euh, Macky Sall nga xamante ne euh, ñoom. sen sen ndox mi baax fi de. Mm. ah mais non la ñun. ndax ndax ku jàkkaar mané mom ak ak ak so moy tul daw génn de. la <laughs> tax mais bu mais nag mais nag ma wax leen sen seen télé bi. Mm. mooy numéro un ah. ah yow da ngay la ñun ñun ak ñoy fi mooy public. public rek wax na lepp non non xam nga non xam nga limay wax nak lu tax ma la koy wax. Mm-hmm. Euh, yéen xamu ko def recrutement mais alxuraan mais dangeen ngeen garaaw cest dire que da ngeen di non je suis très parce que. Ah. Euh, macha parce que parce que damay am dama dégg euh, kii l'italien Sarr. Mm. l'allemand. Ah, mu naan non gisuma opposition gars yi Sénégal opposition ñu ngi nelaw ma ne ko nelawuñu de. deux mois. Mm, daa gàtt rek. daa gàtt rek. waaye tey bu ñu sañoon réew mi réew mi ñu nekk si un an et quelque. parce que xam nañu dans deux ans moom. Mm. soo moytul booy yi ñooy jubal pale. Mm. xale yi. jeunes yi dañu yàkkamte yow. maa nga foog xale yi xam lu ñu may wax. père ñun gisaguñu dara de ñun daal ay waxu góor jigéen la ñuy wax fii ñun gëmuñu loolu. <laughs> te xam nga lool dafa garaaw xale yi la wax jaaykatu sàndaga yi. Mm-hmm. et puis xoolal euh, jaaykatu jaaykatu euh, sàndaga. Mm-hmm. sàndaga yi. Mm-hmm. xool nit ñi dëgër piis dëgër piir di leen génn fi ñu doon liggéeyee yow ñu fal la ñaari weer defa goo ngay génne xale yi fi ñu doon sutura mm. pourtant Macky Sall dañ leen bàyyi woon foofu mm. neel benn euh, deuxièmement euh, tey boo xoolee euh, côté emploi des jeunes mm. pour ñu jox xale yi jeune liggéey man pour man loolu moo doon priorité man boog man su ma doon tey président la république li may njëkk def mooy ne xale yi ubbi guichet unique ne leen dem leen bindu ji ñi am diplôme bindu leen ñu bind nga jéem a sélectionné noonu lu ñu leen di joxee ci réew mi ñu liggéey. comme kon nite xëyu ndaw yi sax xëyu ndaw bi bee bee moom dafa lajj. Mhm. noo dëgg rek laa yalla yàlla tax. xëy ndaw waaw parce que gars yi liggéeyuñu côté boobu liggéeyuñu ko. Mhm. mais dama ne la tey Bassirou Diomaye Faye li ma koy ñaanal te di ko yéene ko. Mhm. mooy na fexe ba xale yi liggéey. parce que liggéeyu ndaw yi gis nga loolu bu amul. billaahi wallaahi taalaahi li amoon ci Macky Sall lu ko raw lu ñu gis fii berte bi ñu tiitaroo ñaari fan laa la may dootu fa gisati berte parce que booy yi dañu yàkkamti te dañu cotiser da nga gis booy buy dem dawal jakarta am ñu ne gars yi de kii mu yë yëkkati dix mille francs def ko ci wéef bi mais kooku tey bu toogee ñu koy waxu góor jigéen di ko toog di ko wax wax mais day wax man damay gént wala te kooku nag violence boobu violence boobu day garaaw parce violence boobu euh, te lu ma si metti rek mooy euh, Bachir Diomaye yéenewuma ko xam naa ko daal mm-hmm. man xam naa ko mm-hmm. Mm-hmm. waaw buñ ko bàyyi woon bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu jóge woon fauteuil bi bàyyi ko ci fauteuil bi moom rek dina ger bu ñu ko bàyyi woon si fauteuil bi moom rek mu toog fauteuil bi ah. dina baax mm. waaye bàyyi wuñ ko xam nga xam nga kujje dafa yàgg nag ku la abali bët fu ko neex ngay xool ma ne kujje wujje wujje ci wujje dafa garaaw ah fi kenn wujjee fi nag. non ah de xamal la. fi kenn fi moom sànq ba tey. il tourne autour du pot wax ma kenn wujjee fi. ah bàyyi leen di jaxase Ousmane Sonko ak Jomaay. maa ne kenn jaxase ñun tey ñaanal Sénégal day star lu ndaw loo leen gis ngeen foog ngeen bëgg a. interpréter comme ni ngeen ko ak leen lu mu leen arrangé. yow koo xam ne même buy dox arrêté leen. boo xam ne même buy dox. <laughs> premier ministre bi day ñëw taxaw kanamam. pour journaliste yi filmer. moom la ñuy filmer mm-hmm. kon xam nga ne loolu kujje weesuwul loolu dañu wax di dëgg mm-hmm. yow président buy dox tapis rouge kenn warul toog ci kaw tapis rouge bi président buñ ko tëgal hymne national kenn warul bouger mm-hmm. président buy génn dañoo war a teg ne parce que xam nga yàlla bi muy bi muy sàkk président dama lay jox exemple moo tax du ku mu neex nekk président Sénégal non non non xam nga Sonko mën na xeex téeméeri at du nekk président xam nga lu tax parce que yàlla buy sàkk président Euh, en ba euh, lu buur mm-hmm. yàlla buy sàkk buur mm-hmm. seconde boobu muy sàkk buur bi mm-hmm. maanaam buur boobu ñaan ñu ko jur ndeyam ak baayam ñi nga xam ne ba ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi séq pour ñu mu judd pour mu nekk yàlla ñaar ñooñu rek si adduna bi yëpp même melentaan yi muus yi sax du ñu laalante la ñaar ñooñu rek ñoom lay bàyyi seetaan la ñu séq li ñu parce que buur lañ nar a jur kon tey kooku ñu jur muy nekk président de la république soo ko ya ne ko fal d'abord abord weddi nga yalla parce que même man damay dégg wa parce que non jomay euh, Sonko ko fal mais ñom weddi nañ yalla weddi nañ yalla mais nag wax No dégg-dégg rek a neex dégg neex non dégg foofu mo fi dégg yalla moy fal Dede, dama ne ay fal wala fal yalla léegi yéen doon génn ci débat Sonko bi non non du génn parce que dafa bloquer Sénégal dafa bloquer économie bi wa mais tamit xolal dafa teel de ñaari weer dañoo sama temps bi dafa des bëriwul waaw dafa tek gouvernement non dafa teg gouvernement boo xam ne gouvernement boo xam ne mënul bouger centimètre mm-hmm. mu jël ay directeur généraux directeur généraux yoo xam ne mënuñu bouger centimètre mm-hmm. waaw léegi ngeen bëgg wax kenn du wax mm-hmm. ah, soit soit Ousmane Sonko baaxul ñi mu no ñi mu ñi mu fal ci gouvernement baaxul direction yi mu jël baaxuñu donc appel à candidature boobu gis nga ku war ren ba déwén gisoo ko rek waroo dañ la koy jiiñ

waaw mais projet bay. Euh, bu ñu mais l' essentiel mooy bu ñu ko exécuté bu ñu bu ñu nekkee fii di continuer di nekk si polémique gu euh, projet bi dans six mois danañ ko bind dinañ ko lal nga dem lu mel ni FMI ñu lay laaj sa projet nga naan. Mhm. Euh, sa programme nga naan jël PSE bi pour def ko projet mais kooku kon façon yéene liggéey Sénégal. d' accord du du ñàkk yéene nag a ah. mhm. parce que tey su ma sañoon Diomaye réussir man. Mhm, parce que dinaa la wax benn affaire. Mhm. man bi ma nekkee yeewi askan bi man. Mhm. bi may bàyyi. jomaay moom woo waxtaan ak man. Mhm. ne ma bul bàyyi waaye xam naa dañ la tooñ. moo tax man kenn mësul dégg ma ma ma critiquer ko xam nga lu tax. bi ma nekkee si di critiquer Pastef yëpp loolu kenn du dégg ma wax yi fay dara parce que euh, nit ku ku respecté parole la. te wax dëgg yàlla te xamewuma ko. même affaire góor jigéen yi. Mm. homosexualité bi man moom xamewuma ko. <laughs> parce que non. kii bu ñu ko toppee duñ génn fa parce que. man damaa bëgg mu daane parce que maam yeneen ñi. xam nga ne ko am na ku ko xamee. moom daa ëndaale jomaay ko <laughs> ko boo ko waxee dafa am ñaari point ma dese ndax instant nii 16 a jot na. dëgg neexul mu daa dese dëgg. Mm. dëgg alxaqu kuy wax dëgg yàlla tax gis nga moo tax euh, booy boobu Karim Karim. xurum xurum xaq